nous allons hors du Sénégal à la découverte du quartier Nyamirambo, situé dans la partie sud de Kigali. Cette localité accueille la majeure partie des Sénégalais vivant au pays des collines. C'est le quartier par excellence des musulmans du Rwanda. Et justement, vendredi, jour de la grande prière, nos reporters Adjabité et Pape Mendy ont fait une immersion dans ce lieu qu'on peut euh, surnommer euh, le Little Sénégal du Rwanda. Reportage. bu Ndakaaru euh, sous tribunal bi ne nañu ko. à sept heures de la matinée la radio au perché distille les programmes d'une radio privée sénégalaise. am ci kaaraange sous bi ak ñun ñi sax daañu mais ne vous fiez pas à l'ambiance encore moins aux habits traditionnels qui tapissent le décor de cet atelier de couture nous sommes à des milliers de kilomètres de Dakar ici c'est Nyamirambo un quartier de Kigali la capitale rwandaise c'est également Little Sénégal car on y trouve. une forte concentration de la communauté sénégalaise. Présent au pays des mille collines depuis 1999, Modou Khaïsek nous raconte les raisons qui l'ont amené ici. amoon na sama benn frère bu nekkoon fii ah, man Cameroun ah, mu contacte amul woon tailleur buy ñëw 217. ma fi ñëwee nekk naa ci moom quoi des années liggéey naa ak moom après ma soog a ubbi sama atelier. Contrairement à son compatriote Abdoul Ahad Silla. lui a d'autres ambitions. Rwanda li mu fi li fi li fi ñëw li mu fi indi par hasard la quoi mën naa la wax ne par hasard la euh, dama dama nekkoon Mali doon liggéey foofu euh, am gis sama benn mbokk sénégalais euh, bu ñuy wax Ndoy ma gis ma foofu mu ne ma léegi dañoo bëgg a def contrat pour nga ñëw Rwanda. Euh, si noonu laa ñëwee fii nii sur Wata kon mu fi ak sama soirée mu fi ñëw doon rek par Cependant, ces deux couturiers de profession partagent les mêmes motivations qui les retiennent encore au pays de Paul Kagame. Au début, c'était pas facile euh, parce que dama ñëw bi ma ñëwee par rapport moment bi bu dëkk bi ni meloon ak ni mel léegi c'est différent dama ñëw bi ma ñëwee daal bi ma accès dama ne ah non man fii dama ma fi du ma ñibbi. mais gis dëkk bi ak ak nit ñi niñ meloon waaw gis nit ñi waaye dama xawoon a dama xawoon a ragal dëkk bi quoi dama ne damay dem en fait dans quelques mois may may habité di habité di habité di habité ba finalement man nag dama ko bëgg nag finalement dama dem ba bëgg dëkk bi waaye dëkk nekk dëkk boo xam si vraiment euh, si sama bu ma yàlla mayee li ma bëgg tamit fi laay investir fi laay toog. dëkk bi moom presque comme dëkk africain yi benn la rek amul c'est la même chose aventure moo nu fi andi rek xam nga réew mi am na dañoo am vraiment yar bi ñu yor beneen affaire la nit ñu tey lan ñu dunu dunu même ba dem takk der yi fii vraiment discipline bi ñu yor daal moom xam naa ni ku ko jël moom da da nga am lu bari. sécurité discipline climat des affaires qui favorise l'intégration des immigrés au nombre de 100 les Sénégalais vivant au Rwanda évoluent principalement dans trois secteurs. Il y a déjà une base politique très très solide ce qui reste à faire ce sont euh, essentiellement les relations économiques et commerciales. Il suffira juste de mettre en relation, mettre en relation les secteurs privés des deux pays, mettre en relation, euh, si vous voulez, des entrepreneurs, mettre en relation un certain nombre de secteurs d'activité. Donc pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de rattraper le gap que nous avons au plan des, de la coopération économique et commerciale si on compare avec euh, les relations politiques. Le Sénégal a beaucoup de choses à offrir au Rwanda. Et le peuple rwandais et le peuple sénégalais sont deux peuples qui s'admirent mutuellement. Et au Rwanda, il suffit de dire que vous êtes sénégalais pour que les gens vous regardent, que vous ressentiez euh, une admiration, un respect. Et je crois que c'est exactement le cas également au Sénégal. mais quelques compatriotes font exception à la règle. Loin des ateliers de couture ou de bijouterie, ces Sénégalais travaillent dans des multinationales basées sur place. C'est le cas de ce Sénégalo-Rwandais. Moi, je suis dans les minerais. mais je travaille en Ouganda. fii damay ñëw quand je suis bu mu amee vacances foofu tuuti damay ñëw fii fii deux semaines trois semaines et puis je retourne. Mais pas le temps de s'éterniser pour l'interview avec notre interlocuteur. car le propriétaire des lieux installé derrière son comptoir nous rappelle qu'en ce jour de vendredi, jour de prière, il effectue le baisser de rideau à 12 heures. Les fidèles musulmans ne veulent pour rien au monde rater la prière de la mi-journée, encore moins le prêche de l'imam Ratib, Saleh Abimana. Aux alentours du lieu de culte, beaucoup de monde se presse pour prendre place à l'intérieur de la mosquée déjà bondée. الله يسر دينك وكتابك في بدنك الله يسر دينك وكتابك في بدنك ما عندك كرة جلسة قال يا شبكة الشمال لك تشوف يا أخي الحاجات ما عندك من الهزم يا أخي الزين كلمة هذا يا هزم القرآن فيه لكن القرآن Après nous nous sommes approchés du grand Moufti pour nous entretenir avec lui. Un jeu de questions qui porte d'abord sur la vie des musulmans vivant au Rwanda, un pays à majorité chrétienne. Uh, here in Rwanda, we are blessed to have a Muslims on board. from independence up to Muslims were marginalized totally from the daily affairs of the, country. We had no right uh, education after primary. We had no right to possess a land. And we just brought together in small, small neighborhoods. Très fier, l'imam Ratib ne rate jamais une occasion pour rappeler le rôle que la communauté musulmane a joué lors du génocide de fabric of intermarriage. The biggest number of our fathers are from Hutu tribes or Hutu tribe, and uh, the biggest number of our mothers are from Tutsi tribe. Therefore, Muslims were far away from committing genocide. In this country, Rwanda, at least in each and every district, you have at least one place of worship uh, which became a memorial site for killing so many Tutsis within those places of worship. But there is no even single masjid in which Tutsis were killed. Instead, Tutsis were seeking refuge within mosques. That's the second chapter. The third chapter is uh, how the uh, wrong governance before genocide tried to uh, black paint our faces as the Muslims. They said, uh, you please make sure you don't get into masjid because masjid is a home of devil. make sure you, you don't read the Quran because the Quran a book of devil. you don't shake hands with Muslims because Muslims are dirty. Muslims touch their backside uh, with their own hands while, making istinja. Qui de la as part of them. Because many Senegalese uh, are here in Rwanda, and they were here even long, long ago, engaged in minerals, and they're so friendly to Rwandese people. Uh, Senegalese, uh, they had money. Up to today, they have money in this country. And they are the best donors to the Muslim activities of this land. Uh, Senegalese were so kind to us to the extent of marrying our Rwandese ladies. So Senegalese normally, for Rwandan people, we la barrière de la langue, la longue distance qui sépare les deux pays, la communauté sénégalaise s'est intégrée de la plus belle des manières dans ce quartier de la capitale rwandaise, situé dans la partie sud de Kigali. Nyamirambo est par excellence le quartier des musulmans vivant au pays des collines. C'est aussi une localité cosmopolite car la majeure partie des migrants de ce pays d'Afrique centrale résident dans cette cité. Et jadis dénommée le lieu où l'on enterre des morts, Nyamirambo est devenu au fil des années un véritable creuset vivant et dynamique des populations africaines.